waaw waaw Babou ak Seny bu Bargny Babou Soudiane Seny bu Bargny waaw waaw fii ci Grand Yoff le dimanche 4 août 2024 waaw waaw dem na Babou contré na ko Seny mooy dem ngemb noir bi Babou Soudiane mooy dem ngemb weex bi korok en chambre pour Babou waaw waaw Seny déjoué na ko aha waaw waaw Seny bu Bargny Babou waroon gën a loxo bi waroon gën a sa loxo foofu baaxoon na waaw waaw Babou Soudiane ak Seny bu Bargny babu Soudiane ak Seyni bu Bargny waaw waaw fii ci Grand Yoff le dimanche 4 août 2024 dernier tournoi de la saison avec Fofi production animation Desa Palo ak Mayang Loum aha Seyni bu Desa ndeysaan ak Babou bu Soudiane Babou Soudiane moo leen woon ginnaaw mooy rengem bu weex bi waaw waaw Cheikh Tidiane Niang bëri na dem mi-temps Aliou Cheikh Tidiane Niang Aliou Diagne mooy combat boobu ci ginnaaw waaw waaw dem na Cheikh contre na ko waaw waaw Babou ak Seny bu Bargny waaw waaw Seny na ko faqat Babou bañ na combat bi metti na ko rok loolu warul ehe eh, waaw waaw daan na ko Seny daan na ko Seny daan na ko l'Impérial Seny jëlal ma sika mbay bi ma ndadi bu koki jëlal ma Daddy Boucoki ndeysaan waaw waaw aha jëlal ma ko Daddy Boucoki doomu nde seeni waaw waaw ndeysaan waaw waaw waaw waaw dama jël bagage yi ndeysaan oh quel na ko Cheikh Tidiane Niang daan na ko